macha allah mais guy gi euh, fan ye gis nga combat bi amoon diggante soq ak Franc euh, waa Pikine génn def deux cent pour cent waa Parcelles génn def cent pour cent Géejawaay moom bi ma nee liiru jaan amoo leen sax cinquante pour cent waxoo dëgg la ma wax. attaqué ma dóor la ma dóor yi bett sax. waa loolu di gërëm Pape Mama ci côté boobu ñu koy nuyu ba au passage ñi ngi ciy dox te gëm naa ne incha allah loolu yàggatul loolu buñ jule ba ñëw rek. moom seet si na ma wax naa ko li nga xam ne sax man moom laa wax ci kii ci conférence de presse bi ñu war a def parce que après ñi jaar Père Hamadi waaw ma ne ko lu ma war a def man yow loo ma wax rek moom laay def man ak Balla Gaye amuñu problème Balla Gaye ak man amuñu problème mais coolu coolu ñu ñaar lañ ñun ñaar rek la. coolu coolu géewaay li ngay dégg man ak Balla Gaye la du keneen du keneen nag pour mu leer ci nit ñi quoi mais coolu coow li muy bari du loo xam ni. Euh, du loo xam ni man maa jàpp wala Balla moo jàpp toog waxtaanee lu ndaw loolu tuuti rek. lu tuuti rek parce que Balla Gaye faaw mu xam ni yàlla moom la tëgg géejawaay mais faaw ñu delloo delloowaat ñu tamit ba buum gi ak baat bi waaw faaw mu delloo ñu bi ak baat bi moom na bàyyee ñu yeew ko di ko womat fu mu ko jëmalee mu jëm fa moo jiitu mooy suñu kilifa ci lépp moo jiitu nañ ko bàyyee ñu yeew ko di ko dirilee li maam Abdou daan wax. waaw parce que nit faaw nga ni man comme sama école maa jiit des ma dégg loo xam ne mais damay sëgg gëmm des fois ni journaliste mais damay sëgg gëmm man la yàlla jiital mais ku yàlla jiital du du lu jug rek nga am noo ko déggee wala noo ko jàppee hmm? guy gi def na ma nanga ah guy gi ah, daan nañ ànd bu yàgg mais tey amatula jot wala guy gi moo wax nanga non non guy gi du melul noonu xoolal ba xam jikkoom lam du jikkoom man nag nit amul sax fitu ñëw ci man naan ma guy gi barki démb dama ci waxtaan saakoor lu yàgg saakoor na ma moom côté boobu moom am nga ci fulla nit ku la waxal dara daa xamul rek da ko yëpp ci moto wala ci oto bi ne ko yaaxu nangam te wax na du dund nañ ko maak moom. di laajal sëriñ bi la waxal. <laughs> wala saako yor saako yor su basaan gis ma ñëw yor kaamil bi rek dara indeti naa kenn <laughs> mujj gi ma dem ba ma ne lii daal weer dof lay nduróo ko chaque jour nga yóbbu ko ci saako yor am na benn bis bu yàggu rek ndeysaan bi mu waaj a def feebar dal noonu. amoo siis euh, ñaari boy ñu wax ma ñëw ma ko saa. dinaa wax de mënu ma bul wax bul wax ma ne moo liste bi faa moo tey mënu ma bul wax maa ñaan te ni ma ko waxoon noonu laa ko doon parce que loolu mooy àdduna àdduna nit ki nan la xam yow yow buñ la soxla xam sa yow xamal yaay kan mais toog tey di dugg ci diggante Balla Gaye Sa Kajoor Sa Kajoor ma gën a neex ci maak moom suñu ànd bi dafa dem ba xam ni man uma problème li ñu daan wax yëpp c'est faux moom mu xam ni moom moom tamit moom mi ngi doon dund ci erreur. ñi ko jël arme de guerre di ko arme de guerre di ko di dugal ci erreur. man carrément damay wax man mu jàppe ni car mu wax ma ni carrément man yow suma rakk nga. te xool ki yaa ni ko ci yow. waaye lu mu ñàkk foo moom nga nekkoon benn instant téye sa bopp ma téye sa bopp ba ba muy leer mooy lu gën muy wax bu am solo te bi mu leeree. wallaahi ñu bëri dañu ragal chaque jour maag saako ñu def benn diwo rek pour ñooñu siiw chaque jour ma ne ko sax baal ma génne liste ko ñu ngi feeñ benn benn nag. benn benn ñu ngi feeñ. mais Guédiawaye est ni ñu meloon. préparation Balla am na ku mu doon préparé ngeen dem stade Amadou Barry di contact xaw ma stade Amadou Barry ngeen doon contact xaw ma école ba. ngeen contact contact bu rëy. loolu mënatoo leen ko am. man la nañ ma tegal cent mille bi ma tegalee cent léegi ma foyee Balla Gaye Balla Gaye ñëw ne ma doo ma foyee man ko dama lay foyee maa moom buñ daan contact waxtaan bi ñu njëkk waxtaan moo gën neex sax contact bi barke Seydina Muhammad danaan ma damay daan fii laay jaar man ko ma yow man fii laay jaar moom damay jàpp man doo jàpp moom bu ma jàppee dama lay mat man ko ma jàppee dama lay yanu mun ma allez-y naar bi pare nga man ko defal ndànk yow comme melax du noonu defal ndànk waxtaan boo xam ni Lamine Kole mi ngi may dégg Abdou Diouf mi ngi may dégg Maguette Seck tey mi ngi may dégg du ma bàyyi ma fenn soo ma masaan ñëw ñoom ñëpp dañu xam ne man kii suma xarit la bàyyi nañ ma ak ñoom tekk nañ ma jox loolu ci mënoon na ñëw di contact ak man duñ ma faale mais dañ may ñëw ñoom ñëpp ñu tekk seen ngemb barke Seydina Mohamed kenn du contact ak man dañ may bàyyi ak Balla Gaye bi mu bare contre Tyson boobu muy pare bi mu contact ak man ba pare maa ko jël di ko yóbbu këram ci ci Magnus mu toog ci ginnaaw oto bi fekk fam mbuusu mango yu bari commencé jël ci mango ji lekk lekk lekk fa mel ni kañ lekk xam naa dafa xiifoon lekk lekk lekk ba mu des ñaari mango mu bàyyi ko fa ñu ngi jaar sama jaar fa nii mu génn nuyu ko ñu jubal yóbbu ko këram mais image yooyu ko gën a neex mais boo bàyyi yenn nit ñi ñuy daw ci yenn rumeur yi di xam nga boo gisee ma leeral lii nag wax ne li li ñuy waaj luñ foog ni moo fi nekk nekk fi muy problème te gis nga bu ñu defee suñu cent pour cent bi ñu wax waxuma la deux cent pour cent mais million million cent ngay gis. Lirou Diane boobu léegi la quatre cent pour cent la. quatre cent pour cent tuuti na million pour cent la ñuy bind quatre cent pour cent tuuti te gisuma lu ko nit di yàqaat. guy jooy Lirou Diane. non ci tax na ku nekk ku bëggoon am xaru tabaski sax jooy Lirou Diane tax na doo am xaru. Lirou Lirou bi muy jooy man dama tiitoon de. wallahi dënn bi ni mu doon ni mu doon ni mu doon yëkkatee man dama tiitoon man avant mu yëkkat dama ne Lamine yaa quelque chose lii am na lu mu bëgg a wax Lamine ne ma dafa set dafa tiit la set bi. ma ne ko non du loolu de kii li muy jooy xam naa mais man dama tiitoon may naa ko ndox ñaari yoon mu naan bidon bi ñaari yoon. musuwaar yëpp liiru da koo fompoo lépp paket musuwaar bi te kilines yu mag la. du jooy yoo xam ne vraiment co parce que wax na dëgg xam nga boo nekk tey ku nekk ku mel ne Xaarim Njaay ñoom ñaar ñu mbalagante bu ko nee sama rakk yi ànd nañ liir lu mu koy tontu liir lu mu koy tontu. dinañ ànd de lay wax. non waaw dinañ ànd. waaw du ko ne sama rakk ànd nañ de. wala du ko ne guy gi laa woon wala baala gi laa woon léegi mais loolu rek li jar na jooy mais bu ko nee bu ko Xaarim Njaay ne sama rakk yi ànd nañ mu geesu gis baala gi toog ni guy gi toog ni la de guerre ak bopp bu rëy bi toog ni ci ginnaaw. non yow loolu image boobu lu ko dàq. man bu ma la nee man la dëgër Balla Gaye dañ naan bokk benn oto di dem da nga naan noonu. man Balla Gaye dañ naan ki ma lay wax nii jibisi la su ma benn grand bu ñu wax jibisi la moo ñu daan yëpp man ak Balla Gaye yi am na ñu doon jaay misu spécial kooku bu dañ daan ñaanal jibisi la moom mu yàgg fi te wér ndax bala Gaye ak man ñu ñu indil ñu ngi koy ñu ngi koy yóbbul barki dem la ma ko doon fàttali. mos nañoo tuddee ko benn soirée Pikine mag Balla Gaye ñëw soirée bi keroog ñëpp a génn baa Gaye nit la koo xam ni ma wax la ci tey yóbbu naa ko ci ay ngénte yu bari nas bi mi ngénte ak euh, ay ngénte yu bari daal dañ ma naan dama bëgg rek Omar ñëw fi moo ko téléphone Lamine ma fii la toll fii la toll mu ñëw dafa président loolu lu ma may la. kooku mu daan lu ma may la. su dëgg na ngeen def démentir lu ma may la man dama naan salle de musculation moo may na ma nii pour am am am moo njëkk may protéine. moo ma bëggloo protéine ba ma jël ci ay protéine kenn kenn rawu ko moo ma moo ma bëggloo moom moo njëkk a jëg États-Unis contre Modou may ma poti protéine ma sakkanal poti protéine bi daf ko or mu may ma ay comprimés yoo xam ne ñu ngi ko tuddee ñu ngi ko tuddee super euh, am na nu mu tudd mais pour boo koy màcc doo sonn pour ba entraîner la day jaay fi pharmacie léegi sax day jafe moom ko njëkk a may kon nga xam ni kooku tey am na fu ma teg boo gisee ma wax li nag nit ki duñ ni rek ñëpp da ngeen am problème nga am loo jàpp nga génne di wax ci nit lu ñaaw non non xamul ko lu ñaaw te su ma la xamaloon ma ko wax te heureusement xamul moom dañuy soxlaante ci lépp nag dama daan misaal miskinaaso dama ne mu naan ma nii ak nii nga war a def pour am pour am doole wala nii nii ngay def wala nii ngay loolu xëy na loolu ba tey maa ngi koy dund. combat Gris Bordeaux Balla Gaye mën nañoo séntu guy gi ànd ak Balla Gaye contact wala ànd ak moom dem salle de musculation wala guy gi préparé ak moom. xam nga loolu ci moom rek lay des loolu moom man am na loo xam ne waxu média la am na loo xam ne waxu média man du toog nii tey naan Balla Gaye lii la war a def ak wala lee laa war a def ak wala lii wala su ma jëlee naan noonoo loolu lu ñuy waxtaanee ñun suñu biir la muy man moom la deger Guiers Sa rakam dañ ko woo rek moom mu toog moom mu assisté moom bañ na ndeysaan lu rafet rek la xam dañ ko woo mu assisté toog woo woo woo woo Aline Sey woo woo woo Lirou Diane sunu sunu kii sunu monument woo kii euh, nu mu Mm, Pape Mama mu toog ñun tenor yi man eh, suñu booy ndaw yi ñoom ñaabu ndaw ku ci mel Cheikh super jamono xam nga bébé guy gi su ma limee damay juum ñu war a xam ne war nañu assister ñu woo leen ñu toog su ma limee damay juum booy bu ma kenn mere parce que mënu ma toog émission bi di lim ñëpp booy waay yëpp ñu woo ñu waxuñu nag ku ne équipe bi da ñëw ñu jël ay kaar ñëw non waaw parce que xam naa ay monsieur la ñuy def boo moytul ay vingt xaar la Pape a def wala ay quinze xaar bu njëkk ba moom dix xaar la woon mais bi mën nañ ko def vingt xaar jili moo damay ragal su laa si wala vingt xaar oh kii bi conférence de presse ku ci wagaleen ban <laughs> muy ko baax léegi bu ñu defee loolu toog jour boobaa nag li ñuy wax journal dañ koy dégg loolu avant loolu dina am fóotu biir néeg jaay waay dina am biir néeg man Balla Gaye la de guerre ñi nga xam ne ñun ñooy tanoor li xam ne bu ñu toogee li ñu war a wax parce que du lépp ngay toog rek waxante wuñu mën naa jékki-jékki xaw ma état Balla Gaye mu toll ñu ñëw toog di wax ma ne ko Omar ça va ma ça va ñu toog <laughs> mu wax toj toj wala man mënu ma guy wala ma toog ma wax toj toj mais duñ ko bu rëy boo xam moom daa ñi ma benn benn la salaamaaleykum mu commencé naan barki si Babacar barki ay yooyu di arabal day soob day soob xam la baax xam nga yow bu ko defee mën nga wax léegi nag bu ñu defee suñu biir waxtaan ba pare woo Baye Jileeg ñoom moo daan taag ñoom lamit ñoom ñëpp ay pël ñoom ñëpp ndeysaan ñu toog ndeysaan pël tamit pël bu rafet ku baax moom tamit dafa day def ay gestes yoo xam ne ci internet ay booy xam nga moom it day boole rek loolu mooy journalisme day boole loolu mooy nit xam nga bu ko defee ñu toog journaliste yi kenn ku ne am sa question bu rafet nag bañ fa indi question xam nga no non non non non loolu defarul loolu defarul bëgguñu fa loolu bëgguñu fa loolu moom na xam ni li ñuy jiite moom la li ñuy def moom la combat bi pour ñu ànd ci ci moom lay des pour ñu nekkaat ci ginnaawam ci moom lay des pour keneen tamit ñu toog kon ne di wax rek ci moom lay des. moom nag du géejawaay ci loxoy Balla Gaye la ne. loolu tubaab bi naan votre ballon votre camp Balla Gaye il est votre ballon votre camp Balla Gaye il est ballon votre camp moom mooy xool kan mooy kan lay jox mu centré teg penalty dóor mu dugg moo xam bu bu bëggee mu teg comme ni ñu ko doon sunu match yi teg centré teg ci kees gi jox. guy guy gi dóor mu dugg ci moom lay des. su bëggee teg centré guy la dëggee lay jox mu dóor mu dugg la dëggee dóor mu dugg sans débat ci def bu bëggee boole ñun ñaar ñëpp boole ñun ñaar ñëpp léegi nag li des ci moom la pour mu toog carrément ñu ko kat carrément lii la mënuñu lii la moom lu ñu loolu rek loolu la ñuy def ñun xoolatuñu lu nekk suñu ginnaaw ay jataay yu kenn xamul bu dee guy gi moo tooñ moom directement lay baalu à Wassare TV ci Baye Djily directement bu dee lu mu wax Balla Gaye te yëgu ko wala ko Balla Gaye jàppal te yëgu ko bala buñ toog sax ñu sulite ay détails bu dee moom moom moom moom it man xaw ma ci moom loolu léegi nag li des na ñëpp xam ne amuñu problème amuñu problème parce que danaa fi doon guy gi moo moo sikk moo nangam est-ce que du tuuma est nangam nangam d'accord guy gi sikk na mais comme li ma la wax du ma bousculer nit chaque jour. Mm-hmm. dafa fu ma yem. Mm-hmm. Max Sadio noonu la woon. bousculé wu ma ko léegi ana mu tey Sako dafa toog ma toog kenn ku ne koyam léegi Sako maa ngi moom duñ toogante cinq jours te déggante ko te buñ déggantee mënuñoo wax maa ngi moom lu dépassé cinquante mille jëm kaw waxtaan waxtaan dëgg la la ñuy wax wallaahi wal azim démb dani ma jëlal sa téléphone li ma wax directement sax laa koy wax jëlal sa téléphone booy école ba wool kenn ku nekk koo jàpp ne yow mii sax daa am lu muy laam-laamee wool kenn ku nekk koo kuru nit ku baax doo ko wax mu ne ma mbër xam naa la xam naa booy booy kenn merewu la mal attendre la rek wool kenn ku ne xam ne jàpp na ne am nga problème ak moom ma ne ko ni ko waxee laa koy def dinaa ko def te noonu laa koy defee loolu mooy nit. non mënoon naa la woo nii sax mais xam nga dafa fekkoon may doog a génn ak yow kenn xamul non mais maag booy amuñu problème bi maanaam pour boo déggee ma loolu beneen problème la bu ma doon réglé ci école bi mënu ma mbër wool booy nga woo leen loolu du maag booy yi mais booy yi ñoo am ay détails yu ndaw ci suuf quoi mënul ñàkk ci école. léegi man loolu laa ko expliqué nag mënuma jëlal sa téléphone nga woleen benn benn nga nga dox ko te am na ñu ma ci jotoon woo sax am na ñu ma ci jotoon ñëw sama oto taal seen taal sama oto ñu ngi yegg jàkkaaroo ak ñoom wax ak ñoom su ma nee borom bopp bu rëy bi rek moom dina xam kan la <laughs> borom bopp bu rëy bi. waaw borom dafa am ñoo xam seen bopp dañoo rëy dara ne ko ci. non la dëgg moom kenn du moom. bopp réew moom kenn moom bàyyi ko bàyyi ko foofu rek du ma ko mën a jël sax. sama nit nga suma rakk nga cër boo ma jox la dañuy déggante di waxtaan. waaw nu sommes nu daan na leer jiili sama xarit la mu danta sama xarit la Lamine sama dañuy déggante di waxtaan te waxtaan bu ñuy wax rek fula la conseillante la waaw kon nag li des moom duñ ma lu ñaanal yàlla fi nga jëm leer nañ. képp ku daal koo xam ni daal vraiment yaa ngi ci làmb liñ ci bëgg yàlla suturaal la ko mu sedd guy nag saison bi ñu jëm président bi fi nekk muy Birasène yàlla suturaal ko ba mbabitam président bu sedd la président président bu sedd la bu àggalee ba àggal moom ba ñu defar campagne nañ jox Keba Kanté moom it mu laal àggalee làmb yóbbaat ci benn niveau parce que làmb loolu la waaw ah, muy grand Kéba. Mm. moom it ku baax. Kéba non Kéba Kanté ku baax. Ah, mm. déggoo mais bëgg Kéba Kéba nekk sama gaañ du te tamit mu wax ci per Bira lu bon. Mm. parce que wonu ma ko gisuma ko ci moom. ñëpp xam nañ Keba suma xarit la doon na jongante CNG mais dama ne bu père père père Bira jeexalee nii vraiment nañ jox Keba moom mu àggale bu père Bira jeexalee nag laa wax te Keba xale ko dese bëri na boobu sax kayam sax mooy dàq waaw mais père Bira nii moom nañ ko jàppale ku baax la xam nga ne oma combat defuma lu ñu ma daggee kon su may wax ci moom tam ñu naan da ko war a dagg dañ ko war a aj yaa ma gën a xam nit ñi ñu bëgg a yàq ñu bëgg a gis lu rek mais waaw mais nag moom man waxuma ci moom loolu waaw muy père Djili Wade xam nga di ñeeg sama écurie Prési Paate Silla Mao Saar Saare Ngay xam nga ñi fa nekk ñëpp Gora Fall hmm? ay ñoom Buuna ñoom Hamadi Laay Gunaas ñi fa nekk ñëpp entraîneurs yi ñu ngi leen gërëm di na sant ñoom ñëpp gis neen taxawu booy yi man oma jot bu ma ñëwee école ba jour tag chaque jour wala may entraîneur booy kon ñoo ñi la yoral booy yi nekk ci école bi di leen sant gërëm leen loolu laa mën pour l'instant boo léegee nag ñu programme benn añ waxtaan fekk ñu jóg saal. bu ñëwee nag def benn kilo def benn selatement. Mm. bu ko defee no ëmma seen lañ ay xooxaluñu man xooxaluma. man xëpp man xooxaluma. léegi nag spécial émission lépp ëmma seen. ah waaw. waa yow loolu da koy def annoncement. spécial. spécial def émission boo xam ni vraiment. bàyyi jiili wasaare napp ëmma seen lay tudd. ak jeex na bu ko defee nag ñu def selatement. wane biceps yi am luñ ko woon tuuti ci tànk bi ñu war a jël. ak niñ ko war a toggalee tuuti rek. jërëjëf mbokk yi ñu koy jaajëfal bu baax guy gi. ndeysaan boobu nit ku baax nit ku yaat nit ku bëgg nit. nit koo xamante ne vraiment nit ku am yar la ak teggin. nekk na kilifa doon limu doon waaye ni rawatina dafa am yar ak teggin. ñu koy jaajëfal bu baax mbokk yi di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew ba jërë ngeen jëf.